الذين حافظوا على سيام شهر الدين أغلق di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi di suivre suñu seen bii di Xew TV di leen ñaan ngeen yokk seen ay abonné te bu leen fàtte di bës cloche notification bii mën a tax ngeen am suñu yeneen vidéo jërë ngeen jëf xam naa kon day jox si maxtaar bu ko defee moom mu saan ciy kàddu moom mi nga xam ne borom kër gi nu mu dundee situation yi nga xam ne moom la ci fekk tey ci ndox mi ak. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yéen sallallahu alayhi wa di sant sëñ Touba di ñaan sëñ Muntaxa mu fi téwér di sëñ Moustapha Mbacke mi nga xam mooy chef ci carte bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi di siyaare waa. Sekhawgui TV yi nga xam ne tey ji ñoo ñëw si setti waa Nguiranene tey ji ñu ngi leen ñaanal yàlla yokk leen coobare yi suñu borom la waaye tim nangu noonu ko tim waaye ku santu doomu aadama doo sant yàlla kon nag comme ñi nga xam ne man dañuy dimbali doomu aadama yi euh, tey def te yàlla tax gis ngeen barab bi ni mel nii am na si néeg yoo xam nii dafa toj ci ginnaaw am na si néeg yi si biir maanaam matériel am na matériel yoo xam ne dafa nekk si biir yu bare bare bare dafa yak amna ño ñoo xam ne dañoo tëj seen i néeg bàyyi ñu dugg ci néeg yi waaye kon ñu ngi sant sun borom mi nga xamni ay ciobaram kep la gis ngeen kër gi ni melni nii situation bi nim mu tim kenn ko ne sax njabot mom nak kër gi sama wajur la fi nekkal sama baye sama ya, ak sama rek ak sama mag waye kenn ku ne no tasaro rek ci fami bi rek ndax noonu dong lay mëna nekk nak euh, liñu dal mo dal ñëpp rek waye te tim dañ ci sant sun borom assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi jullit yi mbokki taalibe yi murid yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di ñëwaat fii rek di fas yéene ànd ak Sekhawgui euh, ko TV ci jafe-jafe yi nga xam ni dugg na ci biir gox bi di Ngiraaneen waaye nag ñu ànd ko kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay gox bi jiital ci jëwrin ji nga xam ne mooy chef de quartier bi di Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Ilimane euh, ay ndawam teew nii di Serigne Salihu Mbacké moom bàyyi Serigne Moussa Abdou Dia Mbacké di imam imaamu koñ bi moo mi ngi nii ci jataay bi ak Seexul Xaddim Mbàkke mi nga xam ne lañ nekk ci biir daram ku ne xam na ne jafe-jafe yi nga xam ne egsi na fi tey yaakaar ak euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñoo euh, da nga ci am aw naqar waaye na dañ koy delloo ci suñu borom subhaanahu wa taala ndax moom mi nga borom borom bi te ku ne xam na ne sëñ bi moom fii suñu borom rek la fi nekkal ak te li gënal sëriñ bi ci dëkkam bi mooy jàng ak jàngale. waaye léegi bi nga xamee ne ban xamee ne coobare suñu borom la daanaka bi ñu xëyee suba sax ndékki jaaruñu amuñu xëy nag dañoo mujj kër gi nga xam mo mooy jëlee ak ñun am nañ am benn espace bu si nekk daanaka heure yi lan doog a mën a xaw a am jàmm tuuti ba rawale suñuy gone doog a tal togg añ doog toggut añ ndekki sa taaluñu ko waaye nag lépp itam ay jullit la dañ koy sant suñu borom ndax am na ñoo xam ne fekk woon ndox mi am na ñoo xam ne ba nawet bi tàmbali ñu ngi fi woon waaye fekk woon ko comme que fekk nañ ko dañuy sant suñu borom. Euh, mu mel ni nag euh, li nga xam ne mooy mooy mooy suñu jafe-jafe ñun waa Ngiraaneen ak li nga xam mo moo wër Ngiraaneen gépp mooy ndox mi nga xam ni mooy bàyyi ko fële ca tëli ba wala ci yenn bërëb yoo xam ne ni kenn xamul fan la. di di di di dugg biir Ngiraaneen. Euh, booba ba léegi nag mi ngi dikk dakkagut gis ngeen ni muy dugge ci biir daara ji. Euh, yàq na fi lu bare bare bare bare fii ci daara sëriñ Seexul Xadim Mbàkke ak yenn ci kër yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi léegi nag ñu bëgg ci saafara saafara si ñu ci bëgg nag mooy nan la ñuy def ba ndox mi arrêté waaye nag comme que suñu borom dañoo boole ak ay aadama comme que nan ko comme ñoko ko kep ko koo xam da ngay jëfël nit rawatan ab talib seigne touba ta yalla tax rawatan keur gi di këru xacide ñuy jangul xacide sakun ni ciëb nañ bëgg wala ay di wala dara ndax keur gi amna miri miiri toj ci ginnaw ba sunne bi nga xam mo ci néeg wajur dafa dag ci digg bi de bain yëpp mampu euh, li nga xam moy sun xalaat dal moy kuy defal yalla ta nga xam amna xalaatu bu dikon tay ji li man man ah ñoo la si ñoom la si tàllal suñu loxo. te ndox mi fii bu fi fekkoon ay tut tànk yaakaar naa leneen la ñuy wax. dégg li liy xew. ñi ngi wax ne ay xale ñi ngi faatu ci biir ndox mi léegi ndox ndox mooma di xale yooyu ndax ndox mi mënu ko gis ngeen ni ndox mi bi ngeen ci duggee yéen daanaka feeñatu leen te li ko waral mooy ndox mi nga xam ne day ball di dikk di daane ay miir bëri na miir yu fi daanu fi ci koñ bi dégg nga biir daara ji ngoone yi nga xam ne ñoo fi yoroon ay jur am na ci ñoo xam ne yu ci baree bari faatu nañ dara waralu ko lu dul ndox mi kon nag ñi ngi tàllal loxo képp koo xam ne yàlla ñor na la ndax fii bërëbu suñu borom subhaanahu wa taala la képp koo xam ne yàlla ñor na la na ñëw bu fekkee dafa bëgg a jëfal suñu borom rek bërëb baa ngi nii ñun nag waxuñu kenn ni la dañ la yelwaan ku ko mënta yàlla tax waaye waaye nag ku ko mënu tim xam na ni kenn ku ne amoon amoon jullit bu ne am na yéene defaral mbokkum jullitam waaye lii dafa daj ci ñëpp rek waaye comme ni nga ko waxee ne comme ganu màggal yi bu ñëwee tim waaye dañu ñaan yàlla tim di ñaan ci mbaaxam lii yàlla moom fi fekk màggal gi ci darajee sëñ Tuubaa ñu koy ñaan baax a baax ku bëgg a jëfal yàlla bërëb yaa ngi nii daara sëriñ Saalihu Mbàkke nii la meloon ci am ndox ku ne gis na wàllu yi nga xam ne ñu ngi ko ci doon ñaan te yàlla rek tax daara Seexul Xaddim Mbàkke ji boo duggee ci biir daara ji boo duggee ci biir mbaar mi da nga gis ni maanaam bagage yi nekkoon yëpp dañoo yàqu néeg yéeg yëpp dañoo daanu bari na gis nga néeg bii dafa daanu Euh, te dara waralu ko lulut ndox mi ñi nga xam dañ koy seetaan tim tey jëfal te yàlla tax tim mm-hmm. kër gi daal mu ngi ni këru xasida ñun tim mm-hmm. ay taalibe leen yoo xam def lenn lu dul lu neex sëñ Tuubaa mm-hmm. lu neex sëñ Tuubaa rek moom leen fiy jëf jàng xasida kon kër këru xasida la tim def kon ñu ngi sant waa Sekhawgui TV tim di leen ñaanal seen borom yëkkati seen site bi kon nag ñu ngi ciy tàllal loxo ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñi nga xam ne am nañ ci pas de responsabilité bu mag mu mel ni nag euh, dafa mel ni dañ cee dañ cee dañ dañ ñoo déggul ndax lii ba mu amee ba léegi waroon nañ cee jël ay matuwaay waroon nañoo ñëw ci kilifa yi gox bi muy sëñ Moussa mi nga xam ne mooy chef de quartier bi ak Cheikhul Khadim ak sëriñ Saliou waaye gisaguñ ñun kenn gisaguñ kenn euh, gisaguñ kenn buñ leen gisee nag dinañ wax ne gis nañ leen ndax ki fi ñëw rek jàpp nañ dafa war a dem ci kilifa gi nga xam ne mooy seexu sëñ Moustapha wax ak moom xam mu xamal ko jafe-jafe yi nga xam ne moo fi nekk wala mu ñëw ci seexul xaddim wala mu ñëw ci sëriñ Saliou Mbacke mii buñ leen gisee rek danañ danañ dalal suñu xel waaye ñoom responsabilité bi nga xam ne ñoom moom lañ ci am ndax askan wi ñoo leen fi teg teguñu fi seen bopp askan wi moo leen fi teg kon yittee askan wi daf leen war a ñor yittee askan daf leen war a ñor état bi tamit ñu ngi ko ci tàllal loxo ndax ndax lii nit ñi niti état lañ nit ñi état bi moo leen war moo leen di war da say di saytu ci fànn gépp kon ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp ñëpp ngir ñu bàyyi xel lii nga xam ni moo xew ngiraaneen euh, boo demee ba biir guy cëmboo looloo fa xew soo demee ba fi ne dañoo gis fii rek waaye bëri na foo xam ne nii ngiraaneen nii lay mel fii nga xam ni fi ndox mi balle fii ci ci ci ci koju jàkka ji penc ma fi ne dafa fees dell kum ndox waaw jumaa ji ay fan ngi yoo xam ne nii ci mm-hmm. loolu loolu loolu loolu xam nga ni normalut loolu gënut waaye nag santaat yàlla rek ndax euh, ñun euh, ay julli lan lépp lu ñëw rek alhamdulilah lañ ciy wax kon daal euh, mbir maa ngi nii ñëpp a ko gisandoo kuy liggéeyal yàlla te yàlla ñor la liggéey baa ngi nii woo na tàllal na la ci loxo xam ni ku ci jëf tamit sa bopp nga jëfal uhuh. wajuru doo ngay gis nañ ko seeni doom ñoo fi nekkoon sëriñ bi bu moom yërmaande ji mu am moo tax dongo yi ku ci nekk mu da leen a mujj sax yabal seen kër ndax moom moom mii borom daara ji sax dafa génn mi ngi fii ci kër jëwri eh, chef de quartier bi muy sëñ Moustapha Mbacke imam bi imaamu koñ bi fi sëñ bi nekk ak njabootam kon yaakaar naa ne su fekkoon maanaam daara ji maanaam am na buñ ko am na melokaan woo xam bu ñu ko ko defaroon mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi mhm. xam ne bëri kuy tëdd di nelaw ba benn heure bi mhm. bu سيام شهر به أغلق باب للإيام ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi baaxoo di suivre suñu seen bii di saxew gi tv di leen ñaan ngeen yokk seen ay abonné te bu leen fàtte di bës cloche notification bi mën a tax ngeen am suñu yeneen vidéo jërë ngeen jëf